waaw ñi ngi leen fay di nuyu euh, internet euh, Leewtoo TV yëpp di leen jaajëfal. ñu bëgg a waxtaan ak yow ci diggante tafaatin ak Boy Niang ban jàngat nga ñu mën a defal ci boobu combat ñoom ñaar. waaw combat bu neex la Tapha ku ne xam ne champion la wala ay preuve am Boy Niang kazaalika aussi ñuy xaar si ñoom journée dimanche bi muy journée bu neex a neex neex neex mais si kaw yar ak teggin. lan xam ci ñaari mbër yëpp ñu koy sensibiliser aussi tamit supporters yeeg ñëw ci làmb yëpp quoi. wala combat la boo xamante ni moom euh, pronostic du si yomb. ndax ñaari ndaanaan la ñaari bagaar la ñaar ñoo xamante ni gis naa seen état de forme macha allah macha allah yàlla ci yàlla yëpp. gis nga ne pare nañu. waaw ah, macha allah wax dëgg yàlla fa mu newoon nga gis ko mu affité yaram bi mu wow koŋ wàcc booy ñaar tamit gis naa ko tamit mu gën a baax macha allah ah kon alhamdulilah yàlla yàlla yóbbu ci jàmm ji et puis que le meilleur gagne quoi. ñii nee nañ xeex bi Tapha Tine la arrangé ñii ne bëre bi Boy Niang la arrangé est-ce nga ci loolu. non ñoom ñëpp ku nekk dafa am loo am ci xeex. ku nekk am nga fu am ci bëre bi aussi waaw ku ne am nga loo am ci xeex bi ñoom ñaar ñëpp ku ne mën nga sa morom xeex bi ku ne mën nga gañ sa morom ci bëre bi. faram fàcceel ma loolu. du ko faram fàcce man mbër laa du li ma xalaat bokk du ko du ko wax su ma ko waxee mën naa lor kenn ki wala mën naa def kenn ki mais xam naa ñoom ñaar ñëpp ku nekk ci xeex bi ku ne am nga atu fenn ci bëre bi ku ne am nga ci atu ñoom ñaar ñëpp nag waaw. tey suuf la génn seen diggante ñoom ñaar ku ci nekk da wutali sa ngemb moroom waaw ba tey yaa ngi dugg ci piège bi ba léegi moo tax ma ci sori combat boo xamante ni ah waaw mooy loolu quoi ma sori ci jàppante yeeg yooyu ndax bon combat boo xamante ni des na 4 5 jours normalement euh, euh, ñi pronostiqué dañ ci wax mais en tant que mbër su ma ci waxee sama xalaat man day mel ne sot la wala jéngal quoi. te man ñëpp sama ay frère la moo tax mun ma ci sori waaye daal xam naa ni combat la boo xamante ni bu dimanche fii arène nationale non dinañ gis dinañ gis lu neex quoi incha allah. dinañ bu rëy bu rëy bu neex te amateur yi dinañ wuyu si.